oui ci sais que li ma mun a wax xoolal tey booy xool match amical mooy li ma la koy foog nga xool euh, ñi ngay dajeel pour euh, Coupe d'Afrique bi malgré que Coupe d'Afrique bi tiré wuñu ko mais Cameroun aussi da si am solo parce que boo xoolee Cameroun moo ñu éliminé woon euh, en bataille si je me trompe Euh, am na benn année boo xam ne moo ñu éliminé en quart de finale. c'est en 2017 en Gabon exactement mu ñu éliminé donc tey jii je pense que ali li mu def c'est important et jouer contre l'Algérie c'était important jouer contre le Cameroun aussi c'est important aussi parce que aussi tamit tey jii c'est sûr que euh, day éviter Égypte du ñu jël parce que Égypte fait partie des des des meilleures équipes le Maroc c'est la même chose comprendre nga mais je pense que équipe yi mu jëlagum c'est important parce que loolu yëpp dina mën a peese aussi tamit euh, équipe am pour mën a xam fan la jëm aussi tamit certes boo xoolee man sama gis-gis équipe bu Cameroun bi passé ak équipe bi dootul du du benn tu comprends mais tey man je pense que entre Cameroun ak Sénégal Sénégal est favori plus que que que que le Cameroun tu comprends mais pour man aussi c'est des matchs yoo xam ne après Coupe d'Afrique bi ngay jëm c'est important nga choisir match yu mel noonu parce que foo jëm yaa ngi jëm Côte d'Ivoire tey jii bu doon sama sago tey nga am équipe bu mel ni Côte d'Ivoire nga am équipe bu mel ni Cameroun comprendre nga parce que c'est des matchs amicaux yoo xam ne c'est pour man c'est c'est c'est c'est très important après les comptes est-ce que contexte yi benn lay doon non mun na bañ a doon benn aussi parce que contexte bi du benn ku gis équipe bu bi nga gisoon mun nga yaakaar ne mooy meilleure équipe parce que actuellement équipe bu Cameroun dafa nekk si benn moment boo xam ne dafa nekk di liggéeyaat équipe bi pour dem mais pour man aussi par rapport ak match bi ñu jigee contre Algérie